Assane Gueye yéenekaay yépp daanaka xëy ñëwaat tey ci yeesal yi am démb ñeel gouvernement bu Sénégal observateur ci gouvernement bu beesab démb bi gis cay calcul yi waaye it yokk ngu nu yokkali cër ña féete ndaw ci wàllu politique gi bu dee li waral yéenekaay bu groupe Futur Média jàppee koy calcul politique mu ne mooy Fatick Ziguinchor Mbour ak Matam yi nu yokkali doole ngir wotey palug njiitu réew 2024 Sidiki Kaba ci ministère intérieur observateur ne xultu ga moom gis ne président Macky Sall na woon fa woon dafa taamu continuité ginnaaw juróom-benni fan yi ni mii ni premier ministre Amadou Ba ba teeg yéenekaay bi di xamle ne gouvernement combat la ak mission ngir jàkkan wi source a ne boo bu bees fanweer ak juróom-ñeenti ministre ñoo ko séq ñett ña di ñu duggoon ci ñoom ñàkk seeni poste Mamadou Talla Thiala Oulimata Sarr Sophie Gladima ñaar fukk ak benn ñu nekkoon ministre wéy di doon lu ni mel député Adji Mbergane Kanouté ci yéenekaay ba tey gis ne gouvernement démb bi amul beneen pexe lu may ko ne président Macky dafa bëgg a defar lu bees ci lu màgget maître Oumar Youm Thérèse Faye Birame Faye ak El Hadji Samb yéeni kaay bi bokk na ci leen may yooyee ndoom ba ñu takkal leen démb l'info jàpp ne Modou Diagne Fada moom ak palam ngir gën a mën a contrer Thierno Lo la ñu ne moom mi jege lool Mouhamed Boun Abdoulaye Dionne ca nekk ca Daaru Musti Daouda Dia ne ngir gën a wóoral la ñu am ca Fuuta Lat Diop ngir fuqartiwaat Géejawaay Direct News ma toog rek la ak toogal fa ma toogoon ci lu bari ak it nag wàccoog soxna Aïssata Tall Sall place Antoine Félix Diome jugee intérieur dem ca pétrole ba Sidiki Kaba wuutu ko maître El Hadji Oumar Youm moom yéen kaay bi ne dugg na ci anam yu ràññiku ñu jox ko ministère des forces armées las ne ay coppite yu ndaw ndawaan la gis bokk na ci Thérèse Faye mi liberté may la mu am démb Amadou Makhtar Cissé mi ñu delloo cëram ak mbetteel bi président Sall génne démb ci seen gis-gis muy Antoine Mbengue mi ñu dénk transport aérien leneen lu ca xew di Mamadou Tall ak Sophie Gladima ñaari jege ñaaley président Sall yi ñu génnee ci gouvernement bi yéene glace jàpp ne gouvernement combat la tribune ne ko déet kay gouvernement doggali sénégalais yi leneen neb laaj bu yéene bi jibal di tribune ginnaaw fuluk ñett yoon budget 2024 bu Sénégal mooy ndax dina tax sénégalais yi yëg ko ci seeni poos ak seeni bool lu ñeel ëllëgu parti socialiste ci biir benn bokk yaakaar ci source a Boubacar Baldé coordonnateur national bu initiative de réflexion et d'action socialiste IRAS ne xalaatuñu raté 2024 ci Amadou Ba seen di socialiste ngir présidentielle 2024 jamono yi mu ne ñu ngi waxtaan ak ñu mel ni candidat yenn yëglu ci wàllu socialiste yi Alioune Sarr ca la Malick Gakou Mor Jean Baptiste Diouf ak Khalifa Ababacar Sall mu jàpp ne favori yi bokk na ca Khalifa Sall ak Jean Baptiste Sud Quotidien moom fësale ginnaaw nataalu président Sall mi laalaat démb gouvernement nataalu Ousmane Sonko it Ousmane Sonko mi ñu ne ma ngay xaar tey nu attekat ba ca Ziguinchor di doxale ak yi wàllum penc sàngara si ndeke du seen i càmmiñ rek waaye jigéen ñenn yi seen bopp danoo dugg ca naan sàngara sa yéenekaay bi di réew mi ko xamle jële ko ci ndaje mu réseau national de lutte contre l'alcool RESECA doon amal jagleel ko gën a gindi journaliste si seetlu gi di ndaw ñi léegi gën a laxasu ci sinébar ba ci jigéen ñi ci la Cheikh Diop di coordonnateur centre Jacques Chirac ba ci jaaro yi ne li mab jigéen ñi naan sàngara léegi ci réew mi day gën di yokk Aliou Ba li jar na ku ci sa jigéen jugeeti marché nga wut alko test naka jekk genn pànk gi amoon na lu ci laxasu